رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مبكي مبك جوليتي مبك انترنتي غينا با نسانت يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زياره di leen ñaanal kooruk jàmm di leen ñaanal lépp lu yiw te nekk ci koor bi yàlla na ko yàlla teg ci seeni loxo ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar xool ñu bëti yërmande te bu ëllëgee mu musal ñu ca safara yàlla am na ko mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam tabaarakallahu nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi nuyu kilifa aada yi ñaana leen jàmm sutura xéewal ak yokkute ndax tabaarakallaahu ñoom ñoo ŋànk réew mii di Sénégal kon fa tabaarakallaahu ñu ñaanal leen yàlla yàlla guddal seeni fan dafay daal di am solo tey nag ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci sifaatu awliyaa illaahi saalihiin maanaam melokaanu nitu yàlla yu sell yi tabaarakallaahu yataxalla awliyaa alsaalihin bil adidi min allati tumayyizuhum an ghayrihim nit yàlla yi dafa am ay melokaan yoo xam ne mooy seen melokaan nga xam ne ci lañ leen di ràññee ak ñeneen ñi nga xam ne du ay nit yàlla bi ci jiitu mooy al iman wa taqwa bokk na ci melokaan yi nga xamee ne kii wëllu yàlla bu sell la mooy dafay am al iman waaw dafay am al iman waaye nag am at taqwa al imaan mooy nga gëm yàlla gëm bisu pénc gëm aljanna gëm safara gëm malaayika yi gëm dogal su neexee ak su naqaree yii daal képp koo xam ne gëm nga ko ci sa xol yow daal yaa ngi ci imaan yonent yàlla Muhammad nee na képp koo xam ne yii dajale ci moom ba pare mu mu mu mu bëgg jàkka ma ngeen koo seddal ni kii borom imaan la taqwa nag kalimatun jaamiatun li kulli alxayr ben bat bu gatt la bo xamne ne dajale na mboolem yiwu àdduna ak alakhirah lan moy taqwa moy li yalla digle nga nek ci li yalla tere nga bayiko lol kesse la takwa dagay taqwa li yalla digle nga nek ci li yalla tere nga bayiko kep ko xamne nat nga sa bopp gis ni yaangi ci yoon wi yo am nga taqwa yegge nek ko ci nak tabarakallah nga xoolal sa wa taala nena ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun hmm? allazina amanu wa kaanu yattaquun yàlla nee na wóliyu yàlla yi ñoom duñu ragal duñu tiit duñu jàq ndax yàlla méngoo seeni miir moo leen di aaral boppam te ku yàlla aar nga mucc te ku ànd yàlla doo ragal mu ne ñoo ñañ la mu ne alladina amanu wa kaanu yattaquun mooy ñu gëm yàlla ba noppi daal ragal yàlla ñii ñooy ñi nga xam ne tabaarakallahu yàlla moom méngoo seeni mbir ba du ñu jàq du ñu tiit ëllëg yowmal xiyaam du ñu jàq ci li fi bàyyi ci ay njaboot ndax yàlla mooy teg ci ñoom loxo waaye du ñu ragal fa ñu jëm te mooy yowmal xiyaam ndax ngërmande yàlla lañ fay fekk alxubbu fillah wal bu'du fillah dafa bokk ci sifaatul awliyaa saalihin mooy booy bañ ña nga bañ te yàlla tax koy bañ nga bañ ko te yàlla tax waaye koy bëgg nga bëgg ko te yàlla tax bul bëgg ngir intérêt bul bëgg ngir ñoo bokk daayira bul bëgg ngir ñoo bokk sëriñ bul bëgg ngir ñoo bokk tariqa waaye bëgg ko te yàlla rekk tax boo koy bañ it bul ko bañ ngir bokkuñu pas-pas bokkuñu yoon wi ñu jëm waaye bañ ko te yàlla tax soo koy bëgg bëgg ko ngir daa nekk ci yoon wi yàlla santaane mooy lislaam te jub ragal yàlla maandu nga bëgg ko ngir loolu sokoy bañit bañ ko ngir dafa jalgati l'islam di di di salfañ l'islam top bakkanam def la ko neex waye bul ko bañit ngir sa intérêt bop wala sa bakkan loolu bokul ci melokan yi nga xamne dañ koy xamé wul yi mu man ahabba lillahi wa abada lillahi wa ata lillahi wa manaa lillahi faqad istakmala al iman kep ko xamne ya nga bañ te li ngay bañ yalla tax soy bëgg nga bëgg te yalla tax sooy joxe nga joxe te yàlla tax sooy xañee nga xañee te yàlla tax neena yow sag imaan mat na moo tax Abu Bakr Siddiq sayyidatna Aïcha ci seen euh, voyage ba biñ ko fàtte ci ginnaaw histoire bu gudd la bi nga xamee ne sayyiduna Muhammad euh, départ na fekk na Aïcha génn na ci euh, xayma xayma bi mooy loolu ñu teg ci kaw giléem yi mu génnoon mu nekkoon ci biir génn te muy génn kenn yëgu ko ñu yaakaar na mu ngi ci kaw giléem gi fekk nekku ca ñu dee te ñoom dañu am habitude arabe dañu am habitude bu ñuy tukki dafa am des gannaaw koo xam ne nii mooy topp seen gannaaw lu ñu fàtte mu for ko indi kooku nag di dox ba yem ci Sayyidatuna Aïcha mu toog mu ne ko looy def fii mu ne ko dama génnoon soxla sama bopp bi may ñëw fekk ñu ñu dem bàyyi ma xam naa dama yaakaar maa ngi ci euh, giléem gi fekk nekkuma fa. mu ànd moom ñëw bi ñu yegsee nag waa màkk na ah góor ak jigéen ci àll bii li da commencé yàq deram am na koo xam ne Abubakar Siddiq moo ko daan dundal yoroon léppam. mu wax ci wax ju ñaaw ba abubakar siddiq daal do dootuma ko jox lu mu lek keroog yalla da wacc ay ne ko bu dee maa taxaw nga diko jox jox ko kon boy joxe ne yalla tax ki joxe te yalla tax nak même sa non bi la bañ nga xam ki bañ bëggul sax nga dund bu soño nga faatu boy dañ koy sédd kon nak iman bokki yombul de waaw al iksaru min taati. dafa bokku ci melokanu nit yalla yi te moy bëri bëgg xër ci top yalla ak jaamu yalla lu am solo la nit yalla yi nak yalla mo len tanal bopam nit yalla suma ko don firi pour nga deg ko moy ki yalla xol ba yag mu ne ko dag ma neex yow dal yaa ma neex yaa ma saf ah, loolu nag misaal ma la ci jox mu gàtt lool taga man ko deg yow may deglu ci nek ci rew mi di senegal su makki sal ñewon tay rek dal Oustaz ali man dal yow danga ma neex torop xam nga ne bala am 2 mois dina yor sama 4 4 bu baax parce que mo yor mo tok ci donkaas gi di tubbu di joxe han wa saka Macky Sall mo man lolu man la génn ci yeen situation yóbbu la situation yu bax ta mom nit rek la yalla ko jox limu yor asuma nak ko yàlla tànn bop na yama neex hmm kon yàlla mo tan wolu yi defal len lim len defal motax xam neena man aada lii waliyan faqad azanani wa man taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahabu ilayya mimma iftaradtu alayhi wa ma yazaalu yataqarrabu ilayya binnawaafil xatta yàlla nee na képp ku contre sama wëllu yu yaa may lor man nga am na ci benn am na benn xadis sax mu ne man aada lii waliyan faqad azantuhu bil harbi ku contre sama wëllu yaa ngi may déclaré te ku guerre ak yàlla doo am ndam kon wëllu yu yëpp nanga leen bëgg nanga leen sopp wóolu na leen sopp ormal leen ngir cër bi leen yàlla defal soo ko defee seen ngëneel ba ak seeni cër yi leen yàlla defal bëgg gi nga leen di bëgg wormaal leen sopp leen ci la yàlla tubb sédd la ba bu ëllëgee ñu rañat la motax mam sidi al-haj Malik radiyallahu taala anhu bi nga xamé ne fa tabarakallah mu ngi ñar ne amna ben góor gu baax bu ñu al al-haj mbay jóob nekkoon ci kel nekkoon fa ben commerçant ci jamono joju ñu wax ñu wax prétend moy ñi nga xamné euh banki dañ leen di financer ñuy commerce di dello mu nekkoon ci kel nag maam Seydi Xaaji Malik nekk njarne di bay di dundee di euh, yar muqaddam yi di leen jàngal ndax muqaddam yi bëri fa leen maam Seydi Xaaji Malik defaree tas leen ci réew mi di Sénégal moo tax liggéey yam ci réew mi moom maam moom Seydi Xaaji Malik kenn mënu koo lam-lamee diine ji lislaam ji moo ko fi tasaare parce que al madaarisu qabla al maja masajid balaa ngaa tabax jàkk da ngay fexe ba nit am xam-xam nag loolu la xam moo tax mu dem ca njarne toog fa jàngal nit yi ay ay ay nit yàlla yu bari yar leen ci diine defar leen ba ñu yegg ci yàlla mu tas leen ci goxi Sénégal yi ku ci nekk nekk maam Sidil Hadj Malick ca gox ba mu nekk. maam Sidil nekk njaar ne bay ba noppi soxla ay buum yoo xam ne euh, daf ko yeewee li nga xam ne moom la bay ba noppi ba mën koo aar mu yónni benn taalibeem pour mu jënd ko ay buum taalibe bi dem kell di jënd ay buum daje fa ak góor gi alxaaji mbay Jóob fekk algor xaj ma jóob boobu dégg na Seydil Xaaji Malik ca xam-xam baag wilaaya baag tabaarakallaahu tabe ga ak yaatu ga ak mbaax ga mu laaj ko ne ko ku la yónni ma ko lu mu soxla mu ne ko ay buum góor gi alxaaji mbay jóob jël ci alalam jëndal maam Seydil Xaaji Malik buum yi ne taalibe boo demee nga jël buum yi nga jox ko Seydil Xaaji Malik te nga joxaat ko xaalis bi ne ko wuutu naa ko ci jëndal ko keroog maam Sidi Xaaji Malick bi euh, taalibe bi indee buum yi daf ko laaj na ko balaa ma ko jëfandikoo dinaa xam ki ma jëndal buum yi ci ban alal la ko jëndee ndax maam Sidi Xaaji Malick ku sàmm woon la ku weg woon la mësul bëgg lu lu lënt lu lënt du ko jege li tax mu bàyyi lekk yàpp bàyyi naan soow ngir ragal xaq ndax nee na euh, bëy bi mën na dugg ci toolu jàmbur lekk fa lu moomul nga ratt ko naan ca soow ma naan loo naan lekk loo lekk nga loo moomul wala nga rey xar mi togg yàpp bi lekk ko lekk nga loo moomut te bokk na ci li tax boo ñaanee yàlla mu nangu mooy ngay dundee lu dagan waaw ah, moo tax si di xaajma lu moo sa yàlla yàlla nangu na ko parce que lu dagan rek la daan mais bi taalibe bi delloo kel laaj góor alxaaji mbay jóob dane ko sama alalu bopp bu ma lew doom ci laa jëndee buum yi jox la ko def ko nag muy sama kóllëre sama diggante ak yow moo tax sopp nit yàlla am na solo waaye jëflanteeg moom teraanga am na solo jëflanteeg moom lu baax am na solo moo tax li may dénk borom alal yi xoo fexe leen ba xam nit yàlla bu baax ngeen fexe ba teral ko ci leen yàlla dénk lu am am solo la. góor gaal xaaji mbay jóob nag mu ngi euh, dëkkoon fii ci wakkaam ci quartier bu ñuy wax sànc foofu dëkkoon góor gaal góor gaal xaaji mbay jóob nekkoon góor gu baax fa tabaarakallaahu nga xam ne euh, tabaarakallaahu mu ngi juddu. à 1854 ci la judd góor gi hadji mbay job way juróom bu góor mu ngi tudon mam ganna job way juróom bu jigen tudon mam jama pay mu dëkkoon wakam. ci wakam bo demee sax euh, euh, grand mosquée bi nek wakam terrain bi mom moko ko mu def ko ci yoonu yalla kon nit ñi yag nañu jël seen alal diko def ci diiné comme ni Abubakar Siddiq daan def alalam jep mu dépensé ko ci diiné tabarakallah ba loolu moo ko may garaat mu Abubakar Siddiq mu nekk saanis nay ni Abubakar Siddiq bu fekkonte ne xam-xam rek mooy tax ñu jege Seydina Muhammad kon Seydina Ali moo moo ko koy gën a jege ndax yonent bi nee na ana madinatul ilm wa aliyun baabuha su ma nekk bu dee xam ab dëkk la Aliyu mooy bunt bi waaye Abubakar Siddiq ci tabeem ak nangoo financé alalam ci diine moo ko may li mu am kon fa tabaarakallaahu financé sa alal ci diine dafa am solo Maam Seydi Haaji nag kóllëre gogum mu amoon ak góor gi alxaaji Mbay Jóob tax na jamono mu ñëw Dakar ba ziyaar ji alxaaji Mbay Jóob bi mu koy ziyaar ji ndeysaan boobu wakaam ay néegu ñax ñoo fa nekk waaye nag alxaaji Mbay Jóob ca dogoom nga ak fonk nit yàlla xam lan mooy nit yàlla mu ne insha allahu bu déwénee balaa Seydi Xaaj Maalik ñëwaat fii dinaa ko tabaxal foo xam bu ñëwee dina nekk ci condition yu baax yàlla dimbali ko nag balaa Seydi Xaaj Maalik dellusiwaat mu tabaxal ko foo xam ne nii fa tabaarakallahu bu ñëwee fa lay dal moo tax bi bi muy génn àdduna dana ay njabootam fii maam Sidil Hadji Malick ak njabootam ñoo ko moom bu ngeen dee miiras na ngeen miiras waaye fii bu mu ci bokk moo tax ñu naan wakkaam mooy wanagu Tiwaawan place boobu tey boo demee ñu wan la ko tabaarakallahu am na téere boo xam ne mu nga fa fa tabaarakallahu mbindu maam Sidil Hadji yi mu nga fa boo ñëwee ñu wan la ko muy bërëb Euh, Cheikh Alxaaji Abdul Aziz baax dem na fa sëñ Babacar Si dem na fa Alxaaji Mansour dem na fa sëñ baaba kër Si Mansour al Xalifa dem na fa ñu bëri dem ñu fa tabaarakallaahu dem naa ba ci néeg boobu ba gis ko nga xam ne liggéeyal nit yàlla rek moo am solo ndax góor gi Alxaaji Mbay Jóob am na ñu bokkaloon ak jamono waaye ba tey ñu koy tudd fa tabaarakallaahu ci façon bu nekk ànd ak nit yàlla ak ñaqal nit yàlla ak jëriñ nit yàlla tabaarakallaahu moo ko def moo tax bi nga xamee ne waa Tiwaawan bëgg nañ ko leen firi alxuraan ñu ba tabaarakallaahu bi maam Sidil Xaaji Maalik dem Tiwaawan pour firil leen alxuraan keroog góor gi Mbay Jóob mii moo bind ku ñuy wax euh, góor gi Jibril Guèye leetar ne ko euh, sama sëriñ Seex Sidil Xaaji Maalik mu ngi ñëw Tiwaawan bu ñëwee na nga ko dalal keroog bi Sidil xaaj Maalik di wàcc ci euh, terrain bi dafa wàcc rek yam ci góor gi Jibril Guèye mu laaj ko ne ko man damay seet góor gi ñu wax Euh, góor gi Jibril Guèye mu ne ko man la tabaarakallah góor gi Jibril Guèye moo dalal moo dalal Seydi El Hadj Malick ca gi alxaaji Mbay Jóob mii bis góor gi euh, alxaaji Dawru Guèye moom ma ko nettali mu ne am na bis maam Seydi El Hadj ne ko dama dama gént ngay doxantu ca mbedd Màkka ya tabaarakallah ci at moomu la bàyyi liggéey préparé ci at moom la aji màkkatal mukarram ba muy dem dafa dox ndeysaan atum 1892 la aji makk moom góor gi alxaaji mbay jóob dafa dox dem dox ñëwaat moo tax un la am ci yoon wi moo tax 1893 la ñibbisi bi mu ñibbisee nag moom moo wax Sidil Xaaji Malik fi muy jaar yoon bi muy jaar ba mën a yegg makkatal mukarrama tabaarakallaahu kooku mooy alxaaji góor gi mbay jóob nekkoon nit yàlla bu baax demoon na ba nekk imaam ca wakaam te ba muy doon imaam Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu moo wax mag ñi ne leen góor gi alxaaji Mbay Jóob mii na doon imaam ndax boroom xam-xam la te ku baax la te ku maandu la kon fa tabaarakallaahu liggéeyal nit yàlla am na solo ndax dina tax sa tur dootul fay ba ilaa yawmi diin tey ay njabootam macha allahu fu ñu dem ñu jox leen cër ndax lan moo tax seen maam moo liggéeyal nit yàlla di Seex Sidil Xaaji Malik radiyallahu taala anhu keroog góor gi alxaaji Mbay Jóob ba mu jugee Màkka ñëw yéeg ne ñu ne ko sax soxna am na doom mu ne ah comme maa ngi jóge baytullahi alxaram nag su doon góor ma tuddee ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye comme jigéen la naa ko tuddee way juróom bu tedd ba soxna amina ndeysaan soxna aminata moomu nag moo jur alxaaji kër géy bii nekk nekk wakaam tabarakallahu alxaaji kër géy googu moo jur sama yaay aja aytu géy ak sama yaay yaafaatu géy tabarakallahu ak alxaaji Mamadou Guèye alxaaji Mamadou Guèye nag moo jur alxaaji Dawru Guèye ak ay rakam yépp tabaarakallaahu kon nit yàlla liggéeyal ko daal mbokk yi am na solo ndax soo ko liggéeyalee la ko yàlla sédd ca ngeneel loolu la ci la yàlla jël sédd la ba nga doyal waaye nag boo contré nit yàlla wala ngay noonoon nit yàlla la ngay cee jëlee rek mooy musiba naarullahi kon nag nit yàlla yi bari nañu la sëriñ Haadi Touré waxoon awliyaaw yépp naw naa leen ca yàlla waaye ganaaw ga nag jaayante nag Seexuna Tijaan radiyallahu taala anhu waaw nit yàlla bu nekk nangul ko ak nit yàllaam nangul ko ak cëram waaye nag nga am ko tànn mu dox sa diggante sa borom nekk sa wasila loolu yàqul dara waaye ñi ci des nag bàyyi leen ak seen cër nag ndax yàlla xatul yàlla dafa yaatu yàlla dafa yaatu yaatug yàlla ak ñàkk xatug yàlla dem na ba ci ki nga xam ne tabaarakallaahu euh, gëmul yàlla sax ndaysan lele mu def kéemtaan bo xamni yow legi yomi gem yalla sax man la yem kon nga xamni ne ay mbirum dafa yaatu te dafa mandu kon fa tabaarakallaahu nit yalla yaangi nonu ñu fonk len bëgg warma len ma sha allah lu am solo al qiyam bil xaqi haqqillah dafa bok ci sifatul awliya moy lepp luy haqq sunu borom nga taxaw ci bu nangu ko jalgati diine bu nangu kuy salfañe diine kep ku nara jalgati diine nga taxaw wax comme ni ko Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabakh daan defee bu bu ñu bëggee jalgati diine rek mu génn wax ak askan bi wax ak réew mi ba ñëpp xelib delluwaat gannaaw loolu am am solo la fa tabaarakallah mbokk yi nit yàlla yaa ngi noonu euh, yàlla leen tànnal seen bopp bëggal leen seen bopp wax naa la sànq ne yàlla nee na ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun allazina amanu wa kaanu yattaquun neena mooy ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ba pare ragal yàlla yàlla ne lahumul bushra fil xayaati dunya wa fil axira ñooñu day am nañu mbégte ci dunduk àdduna bi waaye am nañu mbégte ëllëg ci alaxira kon gaañi nañu fexe jël suñ bopp jox yàlla nañu jaamu yàlla nañu sellal nañu xam ne tabaarakallahu yàlla def ñoo bind indi ñu ci àdduna ngir ñu jaamu ko boo yaakaar nag yàlla da laa bind ngir leneen yaa ngi nax sa bopp mawlaana subhanahu wa taala fawul fooluwul kon nag nañu bàyyi caaxaan te jaamu yàlla ndax yàlla ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun moo tax tabaarakallaahu ab jaam dafay bàyyi xel boroomam ndax loolu moo koy amal njariñ ah, macha allahu li ñuy tëjee sunu kàddu mooy maam Cheikh Alxaaj Omar al dafa wax lu am solo dafa wax ne alhamdulillahi allazi qad awjaba islaaha zaati lbayni summa hazaba nafsa allazi yuslihu bayna annaasi fa saara tahiran min al adnaasi mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo waral ne nañuy yéwénal suñuy diggante yàlla nee na diggante bu ñagas dox ca wax ca ba mu rafet yàlla nee na képp koo xam ne yaa ngi def loolu tabaarakallaahu ëllëg man yàlla dinaa la jéggal say bàkkaar tabal aljanna macha allah Xaaj Omar Fuuti nag daal ne képp koo xam ne yaa ngi dox ci islaaxul bayni te mooy defar ay diggante yu yàqu yàlla dana sellal sa bakkan laabal ko ci lépp luy ayib lépp lu ñu loo xam ne suñu xoolee nit ne ko accam yàlla daf koy dind ci yow taharatan tuhdihi lil insaaf fi zalika al lal irjaaf laab goo xam ne nag daf koy orienté jëme ko ci sell jëme ko ci njub jëme ko ci mbaax ba dootul fen dootul waxi waxi caaxaan dootul wax naka sudul noonu tey it mbokk yi am na bakkaar yoo xam ne la koy far mooy defar ay digg diggante bu yàqu te yonent yàlla Muhammad nee na ñaari nit bu ñu xuloowee lu ëpp ñetti fan ku ca njëkk a dee sa morom xaar ko safara kon nañu tàppoo nañu nekk benn nañu bëggante soppante te yàlla tax loolu moo am solo ñu ngi leen di ñaanal jàmm suutar xéewal di leen jox dig daje ci yeneen émission di ñaan yàlla yàlla yàlla def ci seen poste te def ci suñu poste ci daraaji sayyiduna muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh